kii mooy alaaji Sora sama sama adjoint la kii dafa mel ne ci suba jaaroon na fa ah xanaa moom wax da ñëge si njëkk bi waaw wax na ma ko ah jaar na brigade ba kee jëteg ko yow wax na ma ñëw na fa xam dégg na la ma ko ba mu dikkee moom kii mooy Ardo Ardo waaw mooy Ardo mhm. kii mooy Ahmed Boujaran Ahmed Boujraba waaw Ahmed Boujraba aywa Ahmed Boujraba mhm. Ahmed jànq gay nag moom ah. euh, moom sama xarit la sama dooma mhm. waaw moom nag femme d'affaires la. Hmm, femme d'affaires. moom ah. femme d'affaires yan affaire lay yëngatoo ndax femme d'affaires loolu dafa bari ay pàcc de. waaw xam nga moom nag li muy li tax ñu tuddee ko femme d'affaires lépp loo xam si yërmande baa ngi ci rek ma nga ci def loxoom. lii rek la. lii rek la ku baax la. ab beray leer moom ku baax la wax dëgg yàlla ah loolu moom am na solo loolu loolu am na solo. léegi nag ma ne woon naa leen jox par kaddu gi. El mën Mansour kaddu gi ma ah salaamaaleykum commissaire. maaleykum salaam ñu ngi lay nuyu yàgg ki nga àndal. di nuyu tamit mbokki dëkkandoo yëpp. ndax woote ñu si la rek kenn amut fayam. waaye ndawal buur bu ñëwee cib dëkk. chef seet seet chef de village. Mm-hmm. seet si adjoint ñu ngi leen di dalal jàmm waaye li nu naqari bari na lool. li nu bëgg mooy bu lépp fajuwul it li ci ëpp faju li dal moy samay kaddu li ci ëpp na faju wa salam mm-hmm. kon nak uh, ardo bismillah waaw man ma ngi leen sant di leen gërëm mm-hmm. ndax nun pol kam na ni nun kep ku def fi ay brigade nun nga ko defal mm-hmm. ndax waxtan bi dan dan ci kontaan surtout ma man man sama carrière ak sama boy diex nan tak tak tak tak tak bukki yaangi lek sa sàcca ñi ngi sa mom dal danaka dal man dal damay sax bëgg bàyyi sax affaire affaire jur daal. Hmm. waaw sonn nañ torop bu ngeen nu si mën a dimbal ngeen dimbalin incha allah waaw loolu moom la jël nañ torop ci dëkk bi nag. sonn nañ lool. kar bu ma jiital tey boo lëggee du ma ko gis. waaw jërëjëf. loolu dana faju bu soobee yàlla. waaw dana faju incha allah. Eh, bisimilah Mohamed. waaw aywa salaamaaleykum. Mhm. Eh, eh, gis nga commissaire. man Ahmed Bouzrab man maa ko gën a am lu ko naqari. Mhm. man jóge na gànnaar nu wek suut Mauritanie ñëw fii si ngumb ngeew والله إذا قسنا سوما ديبتر يعني ساي ندنا كوني وسخ جاي ما ما جاي كبر دو دو ما كقسنا خمني بابا سكتنا دم من سخ بعدين واتي سخ سوما فيد بي هذا فدم خم اللونين كو وخمير بزراب ما دم بعدين وخمير ما وخمير دم سوما يندخل ما بقدم سيراس أجهرنا ها لكن أكون مجهز جانك جاي ما بيد مسان نتكادو وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك dagaat baat waaye wax dëgg yàlla ñoo ngi rafetlu woote bi di wax suñu gan yi nga xamante ne ñoom tamit yoon rek a leen fii indi dal leen jàmm wax dëgg yàlla parce que seen ñëw fii nii ñun daf ñuy jàppale surtout man si li may yëngu parce que booy xool man maa ngi si politique bi maa ngi si commerce bi maa ngi si aussi tontine yi parce que man yàlla dafa def man dama yoru natt tontinu jigéen yi te tontine mooy natt yooyu nga xamante ne nii taxawal soxna si yow yan genre façon man dama euh, presque ñi ci dëkk bi yëpp dañoo bokk sama natt weer juróomi junni la. loolu benn loxo la wala ñaari loxo. di am un million cinq cent bu dee ñaari loxo ku mu neex aussi nga am trois millions te loolu aussi xaalis la. mais père yow lan ma siyoon ci affaire yi tontu nag ay natt. pour leeral attention gis nga commissaire affaire yi natt loolu da kay indi problème ci dëkk yi. affaire u teg na tegg na teg na tegg na gisatoo ko dem na yoram jël na xaalis ba te yooyu dong nga fi indi problème ah. mais non non mais loolu sooy nekku ci yow. sooy nekku ci ay lijjanti ay ay natt. te ñaari loxo rek nga yebale wa lu la neex rek na nga ko mën rek ci kaw nga mën ko rek. mais leer rek na leer de. da ngeen ñu siy dimbali. ok parce que comme que yéen teew ngeen fee xel dal na. merci da ñaata sa natt bi. ñetti nit ñoo teggeegum. heureusement sax tombé ngeen egg si. loolu

du yore des na li ngeen def de. ay sën lañu war wax ñoo ngi dégg ngeen naan musique bi dañ ko fi arrêté. mais ñun musique buñ ko fi arrêté ñun dund. non boo leen ngeen tey seen làmmiñ ñi ma defar ñu wax lu ñu def ñun li ñuy def article ñu indaale fii la li ñu des lépp mi ngi ci fii. déppante ci papier mettre sur papier blanc bu leen ma fonto ay jeunes ngeen du ngeen dem ci tool yi ngeen bay. ci tool yi bay leen nga naan ay jeunes Eh, mais maa ne da ngeen war a tëdd kaar yi fi réer yëpp yéen a leen réer yow Absa yow bul wax ak ñun man dama lay seetlu chaque jour booy sàmmi comme xoolal xoolal li ma leen di xamal daal pour une fois booy eh tu la ferme je dis tu la ferme je dis danaa leen xamal leen nag nekk ndawal buur nag du tax nga sub ku siburu nga rendi ko wallaahi la article yi kat seeral leen ko ndax da ngeen a ñëw ci dëkkub jàmbur commissaire bàyyi maa dëkk bi ma raxas dëkk bam set